am mbégte tey fii di euh, fii ci atelier bi nga xam ne euh, le programme de modernisation et de gestion des marchés muy PROMOGEM mooy daje ak ñi nga xam ne ñooy délégué marché yi nga xam ne association bi ñuy wax ASCODEM moo leen ëmb euh, délégué de marché yi nag ci marché Sénégal yëpp la ñu nekk waaye bu ko defoon pour ñëpp ñëw tey duñu xaj ci salle bi donc moo tax dañ ko def léegi par département donc dañuy ñuy war a jàkkoonleeg euh, délégué de marché yi parce que ci volet programme bi dafa am volet boo xam ne tabax la donc li ñuy tabax ñoom techniciens yi moom ñu ngi koy toppatoo li ñuy tabaxee ba nga xam ne euh, risque lakk-lakk dañ koy évacuer de zéro euh, marché yi yaatu rafet set parce que objectif u programme bi li président Macky Sall di wax mooy dem marché dafa war a nekk bànneex da nga war a mën a sol ba rafet dem duggi marché waaye boo xoolee suñu réew fi ñu toll bu ñu la nee demal marché da ngay dem simmeeku ci seet sa yére bu gën a ñàkk solo nga sol ko pour boo dem dem marché ba pare gaaw faa jógee waaye yaakaar naa ne commerçant itam li leen gën a mooy bu nit ñi ñëwee marché mën faa yàgg waaye marché bu set neex xeeñ neex rafet yaakaar naa ku ñëw mën nga fa doxantu euh, di doo fa yàkkamtee gaaw a jógee Euh, programme bi loolu moo ko tax a jóg donc bu walee tabax bi ñi koy too ñu ngi koy toppatoo waaye gannaaw tabax bi dafa am beneen volet boo xam dafa am importance mooy entretien bi ak naka la ñuy war a dundee léegi ci biir marché boobu naka lañ fay nekkee euh, naka lañ koy doxalee te loolu euh, ki nga xam ne mooy porte parole lu commerçant di représentant bi mooy délégué marché yi ndax délégué marché commerçant yi ñoo lay fal démocratiquement tànn ne kii mooy suñu délégué waxtaan ak délégué de marché yi ñu xamal leen euh, li nga xam ne moom la ñuy tabax yu bees bu ñu koy yeesalee naka lañ koy naka lañ ci war a nekkee parce que du ñu toog ba tabax ba pare door a ñëw ne nañu wax naka lañ koy defee donc il faut que ñu àndandoo ñi ngi tabax ñi ngi waxtaan ko defee doxalin wi ku nekk da xam ne marché yi kat bu ñu ko defaree léegi nii lañ ci war a doxee et puis délégué marché itam jox ñu seen xalaat par rapport ak ñun ñi nga xam ne loolu lañ leen indi donc loolu mooy solo si ndaje bi. waaw lakk-lakk yi wax dëgg yàlla metti na torop euh, waaye comme ni ngeen ko déggee sànq ñëpp wax ko suñu marché yi dañoo yàgg euh, te suñu réew dafa nekk réew boo xam ne mu ngi nekk si yoonu euh, émergent développé wu donc bu ñuy defar di tabax suñu réew wax dëgg yàlla marché yi waru ñoo des ginnaaw te wax dëgg yàlla son excellence am ci vision bu rafet bi pour ñu defar marché yi marché yi li ko doon li lakk-lakk yi li koy indi mooy fu neex waay toog fu neex waay xëcc fii waaw loolu nag la programme bi ñëw pour di ko dañuy defar marché yoo xamante ne kenn dootul am sax fil sa dootoo ko gis ba di ko laal marché bi day am délimitation parce que ñun tey bu ñuy tàmbali benn plan commune bi daf ñuy jox li ñuy wax le plan cadastral maanaam délimitation marché bi ñu def recensement bi xam ñaata nit ñoo fa nekkoon yaakaar naa ni le président mbay Ndiaye wax na ko sànq naturellement il faut ñu dem ci marché étage parce que euh, ñëpp mënatunoo nekk ci suuf ndax superficie marché bi attanul d'habitude ñi fay nekk ñuy ëpp li nga xam ne moom la marché mën a contenir parce que boo xoolee euh, da nga war a def ay ay couloir yoo xam dafay yaatu ba nga xam ne euh, ñi war a jënd marchandise mën nañ fa jaar ak ay chariot donc couloir yooyu day jël espace nga ñëwati ci aspect sécurité yi donc yooyu day jël ay espace escalier yeeg ascenseur yeeg yooyu day jël ay espace donc il faut ñu dem ci étage dem en niveau ba nga xam ne marché yi dañ koy limité muy am heure ubbi di am heure tëj di am ay buntu am commodité sécurité yëpp donc ci loolu la ñu jëm incha allah euh, yàggatul léegi di ngeen gis premier marché yi. seen diggante yéen ak mairie waaw ñun euh, dañu ñëw pour euh, jàppale mairie yi parce que comme ni ngeen ko xamee gestion marché état bi daf ko jox mairie yi pour que mairie yi mën a am ay recettes. pour mën a faj seeni soxla yenn soxla yi au niveau ci commune bi alors euh, ci wàll woowu commune bi dafa war a moo waroon a defaraat marché yi commune yi ñoo war a tabax commune yi ñoo war a entretien ñoo yor sécurité bi ñoom ñoo war loolu lépp waaye xam nga sunu commune yi euh, dayoo toyol bu ñu am dañu am problème mu ressources humaines maanaam euh, problème mu am nañ problème liggéeykat am nañu problème mu koom ndax ñoom ñoo war a dem uti xaalis indi ko waaye loolu nekk na jafe-jafe état bi ne comme que man maa toll position boo xam ne mën naa de jàppale commune yi ñu am ay koom defar ko damay créer agence boo xam ne day dem dooleel commune commune yi donc ñun ñëwuñu pour jël place commune ñun dañoo ñëw pour liggéeyal commune yi donc ñun li ñuy liggéey yëpp moomuñu ci leen commune bi moo ko moom dañuy dem uti jël ay koom waaye ku dem jëli koomu jàmbur da nga liggéey pour rembourser ko jàmbur parce que kenn mayewul xaalis boobu donc dañuy dem uti financement ñëw defar ànd ko commerçant yi ñu liggéey te état aussi am doole boo xam ne commerçant yi njabootam lañ mu am nu mu mën a jàppalee commerçant yi ba nga xam ne loolu yëpp euh, dafay oyof dafay oyof si ñëpp donc pour encore une fois revenir mooy euh, les communes ñun dañu ñëw ñëwuñu pour concurrencer leen ñun dañu ñëw pour liggéeyal leen loolu moo tax bu ñuy tàmbale dañuy signé benn accord de partenariat benn convention boo xam ne ñoom dañuy dénk seeni marché pour jërëjëf xam ngeen ne euh, sénégalais yëpp ak commerçant yëpp ñoo bokk tawatandoo jafe-jafe yi am ci marché yi notamment marché yi tàkk marché yi am ay jafe-jafe yu bare bare bare yoo xam ne dafay sonnal commerçant sonnal consommateur loolu moo tax état def li ñuy wax projet programme de modernisation et de gestion des marché muy lan nan la ñuy def ba marché yi jafe-jafe yooyu mel ni ay tàkk-tàkk yeeg yooyu dootul am pour loolu nag il faut ñu xam lu ko waral lan la xam ngeen ne marché yu bari dëgg la màgget nañ waaye niñ leen installé dafa am ay jafe-jafe gisoon ngeen yéen ñëpp même Sandaga boo ñëwee am na ruq yoo xam ne fii nii nu mu daan mel dafa lay jaaxal ba nga xam ni da nga ne nii nan lañu ko mën a installé ak na nan la fi nit mën a nekkee ci sécurité kon li nga xam ne moom mooy respect des normes ci ni nga xam ne moom la ñuy tëralee li nga xam ne mooy marché dafa nekk lu am solo parce que marché dañ koy tuddee établissement recevant du public maanaam bala kër goo xam ne nit dañ fay ñëw di fa bari dafa am ay tëralin spécial yoo xam ne nit ñi moom la ñu war a respecté bu ñu koy tabax pour que bu nit ñi ñu tiit suñuy daw duñ dee ndax dina am évacuation yaatu su fekkee jéeye am na fa pompier dina mun a ñëw su fekkee jéeye am na fa fekk na installé woon nañ fa ay kii de premier secours yu mel ni ki ñoomin seen ay extincteur ak yooyu su fekkee jéeye am na fa ñi nga xam ni ñooy sama xarit yi commercant yi lakkale lu bari il faut ñu am ñu leen mu ngi assurance te boo xoolee marché yi dara presque kenn am ci assurance donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne luñ constaté la ne nag nañ seet nuñ koy saafara saafara bi mooy lan moderniser marché yi xoolaat seen installation yi évacuation yi courant yi di euh, euh, xam ngeen ne marché sax nekk fa am na cóolool yu jógee ci yenn bagages yi yoo xam ne mën na la indil ay feebar yu mel ni ay allergie yu garaaw yoo xam ne parce que aération bi marché bi war a aéré aéré wu donc loolu moo tax ñu ne nañ moderniser yi nga xam ne yàgg na ak itam nañ tabax ay marché yu bees defar tam marché type boo xam ne jàpp nañ ne nit ki buy ñëw ci marché day ñëw foo xam ne fu ko neex la ndax nu ni gën a yàgg ci marché gën a jënd ndax di nga romb dara nga ne ah man kat lii léegi mu jeex ma jënd ko lii nangam lii nangam lii nangam mais bu fekkee marché ba boo fay ñëw daanaka da ngay ñëw ñàkki pexe et que booy boo bëggee presque dangay daw day fekk ne kon loolu arrangé wul commerçant mais nag boo gisee nag loolu ñëpp ñuy def nañu ne kon nañ ci boole gestion li nga xamante ne bii moom mooy marché mun ngaa ñëw marché mais sa sa sa dara réer la. bu amee système d' objet am administration boo xam mooy gérer marché di wax heure bi lay bi heure bii lay tëj di superviser li nga xam ne mooy maintenance ndax tam loo tabax lu mu bees bees bees soo ko entretenir mu yàqu donc loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne bii moom mooy projet bi nga xam ne moom lañ def mu nekk lu am solo pour ñi nga xam ne mooy consommateur parce que ci ñoom lay mujj.